Euh, tey ñu ñëw ci beneen tomb bu am solo lu aju ci wàllu gént euh, mooy gént lu aju ci wàllu meew meew wala soow euh, gént la goo xam ne nag gént la lu ci ëpp lu baax lay doon nag waaye nag mm, li ñuy wax mooy gént day wute ñun nag li ñuy def nii dañuy leer ay tomb ci wàllu gént waaye nekkut ay laaj yoo xam ne dañ koy jël di ko tontoo fii. képp ku am sa gént da ngay woote wala nga vocal nit ki mu leeral la li nga gént ak situation yi nga toll pour nga mën a xam ne sa gént ak li ñuy firi mën naa am ay différence yu wuute bul dégg ñuy firi benn mbir rek eh, nga dem jàpp ñu ne mooy sama gént loolu ñu bëri nga koy def fekk na njuumte lu rëy la ndax eh, nit ku ci nekk am na situation yi ngay toll ak mbir yi ngay toll yoo xam ne ala kulli xaalin foog nga dem xam Euh, li nga gént ak jamono jooju ci yan situation ci nga toll sa gént dina mën a leeree ci jamono jooju euh, bi ñu desaan nag euh, mbiri gént daa nekk lu am solo waaye nag nekk lu xaw a sensible ndax lu tax loolu nit koo xam ne daf laa woo wala mu vocal la rek ni la damaa gént nga mën koo leeral gént gi ba mu dëppoog ni mu ko géntee loolu ak may yàlla la ku ne nag am na lu la yàlla dénk moo tax yàlla yàlla defal ñu feex defal ko ñëpp euh, gént meew nag bari na yu ci aju ndax meew yu koy génne dafa bari euh, nit day génne meew pay yi dañuy génne ay meew léegi nag ku ci nekk ci jamono bu nekk am na lu muy tegtale euh, meew mi ngay nàmpee ci nit ak ki nga gis mu nàmp meew ak ki ngay gis muy ratt meew ak ki ngay gis muy séddale meew ak ki ngay gis muy jënd meew ak ki ngay gis ñu tegal ko ay poti meew wala ay poti soow loolu lépp ay tegtal la ci ku ci nekk ci situation bi nga xam ne ci nga toll moo tax eh, yenn bàyyi ma yi nga xam ne dañuy génne meew ak yenn bàyyi ma yi génne meew am na wuute xeeti bàyyi ma yi nga xam ne yàlla daa dogal daa dagan ci jullit ñu koy lekk ak xeeti yi nga xam ne dafa xaraam ci jullit ñu koy lekk ak yi nga xam ne des ko sib yooyu yëpp ay taxawaay lay doon ci wàllu gént soo leen géntee seen wàllu meew ak li nga xam noonu lay tegtale euh, balaa ñoo jàll ñu leeral li nga xam noonu lay liggéey bi doxee euh, bu dee firi gént yi nag hmm, du aajowu kenn di ko bind message bu dul ci commentaire yi ci vidéo yi moom mën ngaa bind suñu amee jot nañ ko tontu waaye bu fekkente ne da ngaa jël numéro bi aajowut ngay bind boo bindee tamit dañ naan la vocal ko li ñuy tontu mooy message vocal nga wax sa gént fi mu tàmbalee ba fi mu déglu ko mën la koo traduire lii lay tegtale loolu mooy li nga xam noonu la ñuy liggéey bu dee whatsapp bi nag wala appel normal lu mu ci kaa doot dañ koy fayee ko ndax nekk lu ñu firi gratuite bu doon loo xam dañ koy def nii du soxla kenn duñu woo duñ def suñ numéro kon def gin def suñ numéro du caagin gratuite la du tee nag yenn saa yi nit woo la nga may ko firi ko ko xam da ko koo may waaye du caagin ñëpp nga mën a may di leen firil ay génn dañ koy wax pour mu leer ndax que da bëri ay problème ci vocal yoo xam ne kenn xamut da ngay gis moom day gis sa numéro bi rek yónnee la ay vocal yu bari du xam sax foo toll ba noppi di la woo téléphone naal firi ma sama gént gi vocal naa la ko te ba noppi boo ko waxee fay mën a doo du fay ñun toogaluñ fi kenn ñun ñëpp lañu fi nekkal waaye ni nit ñi ni ñenn ci nit ñi bëgg a doxee ñun doxeewul noonu loolu tamit dañ koy bàyyiloo xel nit ndax liggéey bi ñëpp ñoo ko bokk kii wax ak ki ko déglu la bëgg waaye nag demee ba mbir yi mujjee métti ci wax boo bëggee di boole di yor nekk ci yenn yitte di gëstu tomb yi pour mën cee day waxtaan nit ñi bëgg laa gàllankoor di la teg ay fitna yoo xam ne jaru ko alaa ku haal loolu tamit na ko nit ñi bàyyi xel ku am ak gént wooteel wala nga def vocal dama am gént bëgg nga firi ma ko ñaata nga koy defee wala dama ko bëggoon nan lay demee ñu leer la sart bu dee loo man baax na nga doo ko vocal bu dee mënoo nga xam ne jarut vocal loolu tamit ñu ngi koy ñaan mbokk yi nga xam dañuy faral di jël numéro bi di ci woote wala ñu ciy vocal ndax parce que dafa bëri yu ñu ciy gaar yoo xam ni suñ sañoon demee noonu kon loolu mooy li nga xam nañ ko leer numéro bi mooy 78 443 75 27 ku ci bëgg li si xaar gu leer wala firi gént ku yàlla jëlal numéro bi nga vocal ci nañ la indil ay leeral li nga xam noonu la ñu doxee loolu mooy li nga xam ne bëggoon nañ ko leer pour nit ñi bàyyi ko xel beneen bi ci desaat nit ñi nañuy envoyé vocal ci numéro yi nañuy envoyé vocal ndax am na waxtu ñu toll yoo xam duñ mën a wuyu téléphone wa ilaa duñ neex a jot ku ñu vocal nag suñ nekkee ci ligne bi nañ la tontu wax la li nga xam ni mooy liggéey bi ni muy doxee kon numéro baa nekk na affiché ci barre bi 78 443 75 27 léegi nañu fas yéene ñëw ci tegtal yi nga xam ne. meew da koy tegtaleewoo ci wàllu gént meew am na fu muy tekk day tegtale teraanga am na fu muy toll day doon xéewal guy ñëw ci yow am na fu muy toll day doon lo jafe woon lool nga di ko sàkku yàlla di ko sottal bu dee gi sikkar turu yàlla nag moo ci ëpp solo loolu day tegtale leer ci misaal koo xam ne danga yor ab tur di ko sikkal ci turu yàlla yi ñu lay wan ba xam baax naam baaxut nga gént ñu jox la meew yéegal ne tur bi ngay sikkar boo ci kon ne mën nga ci am ijaaba bi ci desaat tamit yéegal ne tur boobu leer a ngi ci xéewal a ngi ci beneen bi ci desaat koo xam ne dangay ngay sikkar foo toll gis di séddale ay soow loolu dañ lay xamal tur bi ngay sikkar loolu mooy saraxam mooy soow mooy saraxam ci misaal meew mooy saraxam dañ laa dénk nga di ko génne di ko saraxe alaa kulli haal soo koy def ay buntu dina ubbeeku bu baax a baax benn bi ci doppaat nak ko xamni da ngay listixaar lu aju ci sey euh nga gënt yor am so dem ba koy joxe mu tour loolu mom saa bo amé yakaru cas la bu dee sori won bo demee ba ci bir man nañ la war wa ila galankor man na ci am ba pour nga jotti ndaw si dana jafe lay lu mat baye xel la même ko xam da ngay lijjanti lu aju ci walu place wala kër xey di mel non lu ci ëpp nga gënt ñu yor so mu tour sa bo amé ci gënt rek yëgal ne mbir moomu ngay sàkku mën naa am gàllankoor wala mbir ma pour nga jot dina jafe benn bi ñu toppaat mooy magam jëmm gént ñu koy nàmpal saa amee rek jafe la ci kii nàmp mooy ki nga xam ne mooy mag gént di nàmp ci meew ci meewu jigéen ci weenu jigéen di nàmp saa bu amee rek na séentu ay xat-xat wala ay jafe-jafe benn bi ci doppaat jigéen joo xam ne daa weesu am doom gént ay weenam di génne meew loolu saa bu amee na séentu ne yàlla dina def ci moom xéewal ak barke ak njariñ loo xam ne dana nekk ci njaboot gi kon loolu saa bu amee rek teraanga joo xam ne yàlla def na ko ci njabootam lay tegtal incha allah